protocole bu mars 2018 ñeel wàllub gerte gi ak la ci aju te nag kuréel yi ci yëngu moon ko ak nguur gi loolee dañ ko salfaañi bu nu sukkandikoo ci Alpha Omar Diallo ginnaaw bi mu nemmeekoo ni ministre bi ñu dénk wàllub mbay mi moom de ñi ngi wër di joxe ay chiffres te nag loolee méngoowul ak li am ci terrain bi. ko tàmbalee si atum 2019 jàpp na ni ministre bi si boppam bu muy xayma nee na kat 1 million 421 mille tonnes ci gerte yemb na waaye nag ANAZ ni 327 mille tonnes moom la ñu exporté génne ko réew mi si xayma 321 mille yooyu dina la jox 500 mille tonnes gerte xottu capital semencier bi 100 mille tonnes consommation locale bi di 40 mille tonnes nee mu war a des 780 mille tonnes loolee la Alpha Omar Diallo di laaj. kon donc moom je le défie. ak ku mu mënti doon ak équipe statisticien bu mu mënti nekk mu toog expliquer ma comment ça c'est possible boo calculer loolu dina des 780 000 tonnes man ba léegi maa ngi laajte ana 780 000 tonnes yooyu. bu ñu ñëwaatee si atum 2020 mu ni 1 million 811 mille tonnes la ministre bi wax ni kat ñu ngi koy xaar si 31 janvier mu cité ni kat am na émission bu mu defoon si benn rajo biréel ni kat 253 mille ton moom la ñuy génnee loolee si xayma dina doon 400 mille tonnes ci gerte xottu huiliers yi nag ñoom jël nañu quatre-vingt mille tonnes mu war a des nag un million quatre cent mille tonnes bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom di million ak ñeenti téeméeri junni loolee tamit muy laaj fan la ko ministre Moussa Baldé teg. kon donc boo calculer kon maanaam Sénégal des na un million quatre cent mille yoo xamante ne kenn génneegu ko loolu damay wax du dëgg ndax boo demee de Njàmbur a Bawol de Bawol à Saloum gerte gi jeex na. moom jàpp na ni dafay làmbaatu ba tey jàpp na ni chiffre ministre bi du jóg di la jël xelub askan wi. nan la ñuy collecté trois cent mille te six cent quarante mille nekk ci dëkk bi voilà ma question et toujours si même entretien bi journaliste bi gëmul waxam mu relancé ko ne ko ñaata lañ collecté mu jugee nee na dootul trois cent ci même émission bi ne deux cent soixante mille la ñu ne ko nan nga koy tase si kaw loxoon na ci loxo chinois yi deux cent cinquante trois fa nekk bii paa ne cent trois loolu la wax. léegi nag xool leen les dégâts ministre bi ak ay chiffres man nag dama ne doy na. ginnaaw loolu jàpp nañu nii secteur bi yàqoo na te nag du kenn ku dul ki dénk wàllu mbay mi moo waral ñu jóg taxaw tem ngir jàmmaarloo ak moom ndax fi ñu toll nii seen liggéey yàqu na seen ay investissement yu bari mi ngi ci suuf. ci regroupement bi ma bokk tamit 154 unité muy Rasiat deux ans ñoo bokk jàngoro liggéeyuñu léegi ñun tamit ba kañ état bi kañ la ñuy xam ne ñu ngi fii. boobu ba léegi depuis daaw ñi ne sama ginnaaw ñu si bëri tele laa leen gisee woon laa leen xamee woon fëgg nañ bunt yu ne quand est-ce que ça changer loolu laay laajte kañ lay changer. li ma fi def nii toll na ci vingt 28 millions immobilisation di perte chaque weer non chaque at pardon 4,8 millions de francs fa maanaam li may fayee fii entretien machine yi gardien yi may fay pour ñu garder fii moom mooy message charges fixes te liggéeyuma loolu dama ko war a continuer ba kañ et bientôt deux ans ma nekk ci situation boobu. et pourtant gerte gi may sauvé et jusqu'ici mënuma ko jël chinois yi ñoo ko jël yóbbu au nom de quoi. dàqu ñu sax nag ba jël plainte teg ko si ndodd bi les ministres ndax nag lii mu def fu ñu sukkandiku si ay kàddoom. nag dama ne doy na ndax personnellement je vais déposer une plainte contre le ministre de l' agriculture monsieur Moussa Baldé ce faux mathématicien ak ay groupam de statisticiens devant la cour de justice foofu la ko war a plainter pour manquement répétitif notoire d'un service public. diffusion de fausses informations entraînant de pertes de capitaux à des investisseurs et industriels sénégalais, manipulation de chiffres en vue de tromper une haute autorité du pays, je veux dire le président de la République. Bon, enfin, trahison, haute trahison, bon, xaw ma dama koy waxee ci olof haute trahison et défense d'intérêts étrangers. ñoom acteurs yi nekk Touba jàpp nañu ni mën ñoo nangu di dëkk fii di fi yeewoo ay étrangers di yóbbu gerte gi ñu koy gis te nag mënuñu ci dara. donc pour man tant que ñu ngi am ministre bi pour man c'est un ambassadeur ambassadeur Chine la ci biir gouvernement wu Sénégal suñu chaîne de valeur du mës a dox les familles xaajali ko investissement bu ñu fi mënti def ku mu mënti doon en tout cas si la transformation dañ koy perte. ñoom daal li ñuy laaj mooy solution. joxaat leen seeni droit fexe ba gerte gi ñu koy exploité fii si biir réew mi su ko defee mu mën a laal ci koomu réew mi.